El Hadj Fadika professeur euh, maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay gërëm di la sant. yow yow jiite euh, conseil national bi ñu teg ci wàllu don ak transplantation Sénégal euh, ñu gis ne ci altine gi lee dinañ màggal bëccëg bu ñu jagleel wàllu feebaru roño ci réew bu Sénégal tey jii lan nga mën a wax ni ci bëccëg boobu la. en fait normalement la la journée demain ça devait être jeudi normalement alxames la war a doon parce que c'est le deuxième. chaque deuxième jeudi mars la quoi. léegi mais ñu ngi lay gërëm di la sant ci invitation bi je pense que ñun occasion yëpp baax na pour ñun pour ñu ñu waaj nit ñi ñu ñu sensibiliser nit ñi ci feebar ren surtout ñu jéem a jël seen matuwaay pour feebar bi bañ leen daal parce que li ñu nemmeeku mooy feebar yu bari ci ci li indi lépp ci feebar ren yu ci bari mën nañ koo moytandiku donc occasion yu mel ni sànni baax na yéen ñi nga xam ne nekk ci média yi di liggéey. Euh, xam ne vraiment ay partenaires ci ngeen la ci ñun ngeen jàppale ñu ci ñu ñu jàllale message yi pour ku nekk mën a fagaru parce que fagaru bi daal am na solo mhm. Mhm. bi am na solo wax nga ko nga jiite ma fàttaliwaat question bi nga jiite comité boobu nga xam ni moo yore wàllu don ak transplantation ah, tey situation bi boo ko doon def ci ñi nga xam ni am na nañu feebaru euh, roño ci réew bu Sénégal lan ngay wax ak li nga xam ni moo lay xaar ci liggéey bi. non léegi transplantation ñun organe la boo xam ne ñun dañuy organiser dañuy contrôler dañuy superviser wax naa la léegi nasaraan ñun comme ARNP xaw ma ARTP la xaw ma nu ñu wax seen conseil bi régler audiovisuel bi ñu exactement plus ou moins role boobu la ñuy joué au niveau de la transplantation c'est-à-dire ñun du ñun suñu membre ñooy dem di transplanté dugg hôpital tel nangam ñun mais dañuy xool créer cadre bi ak condition yi saytu lépp pour que ñu mën koo def ay ci anam yu wóor c'est-à-dire soo bëggee transplanter hôpital bi ak bu mu doon bu dee bu Dakar la bu dee ci yi ak ku nekk am nga droit mais dafa am ay conditions yoo a remplir ay critères donc ñu définir nañ critères yi et puis aussi il faut xam aussi benn affaire que du malade bu amee général yëpp la mën a transplanter parce que dafa am ay indication transplantation dafa am ay contre indication ah, transplantation ndax mun nga ñëw sax ci critères a sóobu ci question critère nag mënu ma ci wax dëgg yàlla mënu ma ci sori parce que combine nañ ko mhm. je pense autorité bi yi nga xam ne moom moo ñu fi teg ñu jébbal ko ba pare suñ koy jébbalee ba pare ba ba ba ñu yëpp ba lépp leer bu boobaa nag danañ leen woote ci ndaje bu gën a yaatu loolu mhm. pour ñu wax leen kayit yi jébbal leen ko loolu loolu moom amul lenn après luñ ci liñ parce que dañ bëgg mu transparent danañ ko woon ñëpp malade yi danañ ko jot hôpitaux yi danañ ko jot presse danañ ko jot comme ça mu leer ku nekk dañ ci jot incha allah te du yàggati. waaw du yàggati ñi ngi doog di xaar wante ñeneen ñi mënul a xaar mooy ñi nga xam ne ñi ngi feebaru jàngoro bi wax naa ko sànq ci nasaraan ñoom ñi ngi wéy di yuuxu di woote wàllu di wax ni tey jii lan mooy problème bi ci wàllu jalis bi dëgg la sax euh, c'est gratuit maanaam kenn du ci fay dara wante accessibilité bi dafa mel ni ñoom ñun ñëpp jote wuñu ci lan mooy coow li tey. mais parce que problème bi mooy xam nga léegi wax naa la rein bi feebar bi dafa mais mais c'est vrai que nag li ñu ëpp soxla par rapport ak place yi dafa am différence loolu moom dëgg la mais nag aussi nit moom su fekkee vraiment yaa ngi liggéey ci mbir te yàlla fekk dimbale na nga gis nga bi fu dem ba fu mu egg xam nañ ne ay jéeg yu rëy def nañ en en moins de dix ans centres yi quand même multiplié lañ leen par cinq six kooku xam nga nit yi maintenant nag euh, des na des na naam des na des na lu bari sax il faut ñu continuer léegi chef région am nañ. beneen étape bi mooy def chef lieu département bi commencer transplantation bi mais leneen li ci ëpp solo ak li ci am solo mooy ñu xool feebar bi lu tax muy gën a bëri chaque jour ngay muy gën a bëri soo amul mbokk soo ko amul nga am mbokk mu ko am wala nga am xaw am xarit bu ko am wala tëj donc loolu il faut ñu teg ko pour ñu seet loolu xam nañu feebar yi xam nañu leen feebar yi ko indi donc il faut ñu def fagaru bi prévention bi ñu insister ci parce que am na am na solo maintenant nag leneen li maladie wax naa la léegi suñuy partenaire lañ mooy ne ñooñu fi tax a toog daanaka parce que ñooñu xam nga médecin moom liggéey mooy faj. donc loolu malade mënul nekk ak mënul nekk en opposition avec un malade. Mhm. loolu mënul nekk ñun lu ñu mën nekk ma ñun nous sommes ouverts en tout cas surtout au niveau du conseil lépp idée boo xam ne am na njëriñ mën nañu avancer loo ci li ñuy def mën na avancer loo dialyse beeg néphro bi de manière plus générale ñun nous sommes nous sommes ouverts et preneurs amul benn problème. Mhm. Euh, mi nga ko euh, ma euh, El farica Farika ba tey ñu wéyal ak ci waxtaan wi jëmale ko ba tey ci don ak plan transplantation wax naa ko sànq malade yi ñoom nee nañu yëf yi décret d'application bi def nañ ko depuis 2018 wante yëf yi dafa yéex loolu yow nag yaay yaay coordonné lépp lu ci jëm tey ji lan mooy problème bi ndax mën nga ci ñëw. waaw léegi xam nga loi bi génn na 2015 décret bi 2018 mais ñun bi ñu nommé c'est en juin deux mille dix neuf matagul at te bu liggéey kii bi nag liggéey bu rëy la parce que xam lu koy organiser ak loi bi dara amu fi parce que ça n'existe pas dans la loi sénégalaise mm. donc il faut tout créer il faut tout mettre en place donc loolu nag benn processus la boo xam ne vraiment ñu ngi liggéey de fu mu nekk ni liggéey bu rëy rëy mais nag c'est vrai que tool peut-être que aussi génne wuñ ko ci biti naa nit ñi lii lañ def parce que aussi bëgguñu woon taxaw chaque jour naa la danañ def lii alterné danañ def lii talaata non non non ñun dañu bëgg bés bu affaire bi yembe ñu ñu jébbal ko ñu ne te presque li ci vraiment en ce qui concerne le rein vraiment lu ci bëri bëri yemb na presque suñ ko jébbalee nag mais nag du ma ci du ma ci sore parce que aussi euh, par loyauté par courtoisie ak lépp li fi nag nag euh, lii mooy critère lii mooy lii fekk euh, autorité bi jébbaluñ ko de xam naa ne su yàggee ba yàgg. fii ak semaine prochaine wala beneen autorité bi nag jot su ci jotee nag danañu réunir ñëpp ñu ñu war a réunir ñu wax ak ñoom ñu wax leen lii mooy mbir bi mhm. lii mooy critères yi hôpital yeeg hôpitaux yeeg média yeeg maladie yëpp ku nekk danañ jox te lii jébbal la ko et après mu leer naa nag euh, hôpital boo nga xam ne yaakaar nga ni mën nga transplanter nga déposer ce dossier suñ déposer ce dossier dañuy commettre ay experts ñun sax dañuy jël ay experts ñu dem. saytu xool est-ce que ñii li ñu wax ne am nañ am nañ ko est-ce que c'est conforme su boobaa gis nga ok ñu ne la ay waa ji euh, mën nga transplanté c'est comme ça ça c'est dans la transparence hmm. parce que xam nga transplanté joxe rey mu ngi mel ni vraiment euh, comme day nekk tour de contrôle aéroport xam nga ñooñu amuñ droit à l'erreur parce que xam nga soo defee erreur même si c'est euh, lu mu mën a tuuti tuuti man nañu ni crash hmm, hmm, mais de la même manière nag ñun li ñuy def dañ ko war a def mu leer avec le maximum de sécurité parce que vraiment mënuñu wax ne erreur du am mais vraiment que ce soit en tout cas suñu objectif mooy zéro quoi mhm. parce que c'est quand même de de de c'est la vie humaine d'accord d'accord vous l'avez dit donc wax nga ko euh, professeur Ka tey jii euh, tamit euh, am na benn chiffre bu ma la avancé woon mais yow nee nga nañu moytu chiffre yi te amul dafa mel ni daal wóorul Sénégal ñu gis ne tamit ñi wéy di am feebaru roñoo mi ngi gën a bëri ci réew bu Sénégal loolu tamit doo ko weddi waaw yi centre yi toll nañ ci 23 centre dëgg la am na ay jéego yu bëri yu ñu ci def mais ba tey ñoom ñi ngi wéy di jooy ñoom ñi nga xam ne ñoo dund ak feebaru euh, euh, roño ci réew bu Sénégal yow professeur nga tey ji ban message ngay joxe ngir nag euh, feebar boobu mën na arrêté di law man daal li may def mooy def déjà masawu malade yi rek ñiy xaar rek jiitew yëpp di leen masawu parce que xam nañ ne feebar dafa métti déjà rien que ça dafa métti maintenant ngay war a dialyse même soo fayal dafa métti da ngay dem hôpital trois fois par semaine passe parce que loolu yombul maintenant euh, maintenant li ñu mën a wax nit ñi nag lépp loo xam loo gis ci àddina rek lu gën mooy ñu waxtaanee mm-hmm. parce que ñu ko benn problème ñu réglé ko ci mbedd mi loolu moom du loolu doon ñu waxtaanee ku ci am idée boo xam ne yaakaar nga ne soo ko waxee dana dana indil dana amal nit ñi njëriñ dana am askan wi njëriñ danañ avancé nga wax ko ñun ñëpp ñu jàpp ñu ku nekk xool ci nga mën a jàpp ñu avancer beneen beneen fànn bi jéego yu bari am na chambre wax naa la si multiplier nañ ko par cinq ou six loolu c'est pas négligeable et que la jël dafa gudd ça cher parce que lépp tout est jetable matériel maintenant nag nañ fagaru aussi nañ fagaru nañu fagaru nañu fagaru nañu wàññi xorom bi wàññi suukar bi wàññi diwlin bi di dox di dox di def sport parce que léegi téeréer xam nga rek moom léegi euh, kenn du doxee ci tànk cest yëpp léegi oto la ñuy dugg <laughs> donc euh, donc loolu lépp am na ci solo ñuy naan ndox mu bari ñuy naan ndox mu doy donc loolu loolu la ñu defee et puis garab boo jot nga naan bu fooy warum suñ ne la diw ne man de jëloon naa garab baax na ci mën nga dem jënd ko wala sëriñ séeréer bi nekk ci koñ bi naan la soo diwoo lii soo ko naanee mu kii loolu lépp dañ ko war a fay. Mhm. dëgg la dëgg la euh, professeur Ka donc la toute euh, avant dernière question mooy di wax nañ ko sànq ci chirurgien yi yaa ngi doon dalal xel yi di wax ni macha allah Sénégal am na chirurgien yu bëri wante ndax tamit loolu ñii di patients yi dégg nañ ko wala sax ndax ñi ngi ko yëg. waaw mais mais loolu je mais xam nga mala maladie quand même loolu man chirurgie wax naa la amuñ problème technicité normalement Sénégal que li ñuy opéré moo gën a ëpp ñu nga wax ñu ngi transplantation dindi rein ko fële moo daanaka ci lu gën a yomb ci ay ci ci transplantation la bokk surtout bu rein mm. soo demee réew yëpp ci rein la ñu commencé parce que moo gën a m donc vraiment technicité chirurgie euh, euh, médecin Sénégal surtout les chirurgiens vraiment kooku amul amul benn problème en plus les gens dañuy capacité

Donc ça ne pose pas de problème. D'accord. Et puis les gens sont des partenaires. Mhm. bien sûr ah, donc euh, c'est euh, kàddu gu mujj euh, professeur Ka ngir dalal xelu ñi nga xam ne ñi ngi ci liste d'attente bi wax naa ko ñi nga xam ne ñi ngi dund ak jàngoro bi te ñi ngi lay teewlu fii ci Rewmi FM sa message bi nga leen di lancé ngir dalal seen xel lan lay doon. waaw léegi man daal li ma leen di mën a lancé mooy déjà di leen di leen xamal ne ñoom ñun ay partenaires lañ ñun ay partenaires lañ ñun ay médecins lañ faj ma faj nag soo ko déggee faj nag lépp la ëmb nit ki bopp su bopp bi di métti mën nga koo jox garab gi bopp bi set mais da nga war a xam lu tax indi lu indi bopp bi métti boobu donc da ngay vraiment da ngay jël nit ki en charge de manière euh, complète euh, sur le plan euh, somatique sur le plan social lépp lépp ngay intégré ça donc ñu ngi leen di masawu xam nañ du jafe-jafe yi ñuy dund ci loolu xam mm-hmm. ko mu wér. Mhm. loolu mooy sag loolu mooy sagu médecin mhm. moo tax may wax médecin yéen suñu revendiqué salaire bi xam nga yow mënuñ la fay da nga la seule salaire bi nga bi nga am mooy nga nit ñëw di souffrir un mois après nga moom yow mën naa am sax boo ko xamee mhm. moom moo lay xam ne remercier parce que loolu koo kii loolu lañ ko am donc ñun am ñun maladie suñu partenaire lañ ñu ngi leen di masawu ci feebar yi mais di leen ñaax encore une fois li ñu am lu ñu xalaat bu baax bu bu bu ñëw ñuy waxtaan ci waxtaan ci autorités yi. ñu mhm. jéem seen ay solution te transplantation bi ñu ci dégg ñu ngi ciy liggéey te incha allah du yàgg man en tout cas wàll bi ñu nga xam ne moo ñu incombé mhm. danañ ko jébbal euh, autorité bi maintenant que nit ñi comprendre que fin te conseil bi ñun ñooy transplanté mais dañuy organiser transplantation bi. d' accord leer na leer na merci beaucoup professeur. maa maa ngi lay sant di leen gërëm. Euh, ñuy fàttali ne euh, El Hadj Farika mooy njiital conseil euh, national bu yore wall don ak transplantation roño fii ci réew bu Sénégal ñu ngi lay jaajëfal El Hadj. merci beaucoup allez au